Pastef les patriotes kon ci sukkandiku ci ëtt yéenekaay bi di su A mu ngay way nag di teg jéego rek ngir dëggalal candidature bu seen plan B loole nag jëm ci présidentielle yu 25 février 2024 fii la ci réewum Sénégal gannaaw nag ay jafe-jafe yoo xam ne wër na candidature Ousmane Sonko maire bu soor gi nga xam ne nag moo nekk ci boppu parti bu nu mel waaye nekk seen candidat principal mbir ma nag jamono jule mel ni daal gët yëpp tegee na ci kii di Bassirou Diomaye Faye gannaaw ba ko Ousmane Sonko désigné ngir nag mu dajale li nga xam ne moo di parrainage citoyen caution bi nga xam ne nag kon moo war a ànd ak candidature am daal na koy déposé fële ca caisse de dépôt et de consignation loole nag wane rek kon ni parti bi daal mu ngi dem ak benn stratégie ngir nag fexe ba candidature bu Ousmane Sonko bu na saxee rek ñu am geneen goo xam ne dana ko boot mu jàll candidature bu Ousmane Sonko nag jàkkaarloo su taakal mu bokk ca sax yu bureaucratique bu nu ko mën a waxee noone loolee ñu mën caa lim attestation bi nga xam ne kon war naa ànd ak quittance am gannaaw bu mu déposé li nga xam ne moo di caution am ca caisse des dépôts de consignation jaare ci mandataire am di Ayib Daffé lu nu mel jotagu ca waaye tamit li nga xam ne moo di fiche de parrainage yi nga xam ne nag jote jafe na ko lool gannaaw ba direction générale des directions lànk tëdd ci suuf ne du ko jox ndax moom nekkul ci liste électorale yi loole nag tax ba kon parti bile di Pastef daal di tabb ki nga xam ne moo di Bassirou Diomaye fay nag ngir moom mu daal di rek wëri li nga xam ne moo di parrainage citoyen laata mbiri Ousmane Sonko ak yoon de leer lu ñu mel nag tax ba moom Bassirou Diomaye Faye kon jàpp leen na nag daal dinay déposé li nga xam ne moo di caution bi war a ànd ak candidature am foofe ca caisse de dépôt et de consignation loole nag ñi def ko ci ak tekk tekkaaral goo xam ne rek kon mënees naa jàpp ne parti bi di Pastef moom xamu ko waajut waaye mu ngay waaj bu baax a baax ñeen nag présidentielle du 25 février 2024 Ousmane Sonko dana ca bokkam du ca bokk ndax candidature bu Bassirou Diomaye Faye dana jàllam du ca jàll loolu nag des xaar ana lan la conseil constitutionnel di wax gannaaw rek bu nu déposé candidature ba mu war a génnee li nga xam ne mooy listam jërë ngeen jëf mbokk yi ni mu doon xibaar ci biir vidéo yeneen xibaar rek yeneen vidéo lay